li ma wax ci jàngoro jooju moom moo nekkaat ba tey ci jàngoro ji nga xam ne moom la ñu bëgg waxtaane sànq muy cancer euh, du col de l'utérus moom moom mooy jàngoro ji nga xam ne buntu euh, butitu njurukaay lay dal euh, xaw ma am na ñu fi nekk ñu ko mas gisam déet mais jàngoro ju doy yu daw yaram la ju métti la ñun ñu ko dund gis ko xam nañ jàngoro yu métti la te dafa am lu koy aar dafa am loo xam ne ni boo ko jëlee boo ko defee jàngoro ji du la dal loolu gëstu ak xam-xam wane na ko ba indi jumtukaay boobu mais jumtukaay boobu toppatoowuñ ko ñàkk yooyu ñu ñàkk jàngoro jooyu indi nañ ko ci hôpital bi ñetti yoon ba mu périmé ñu delloo ko ba mu périmé ñu delloo ko bon jot na fi nekk ñi ne te li gën a doy waar doy nga gën doy waar mooy Sénégal gi yëpp ñu ngi ko ñàkk ba mu des Touba Sénégal gi yëpp boo duggee ci site bi nga xam ne fa la ñuy dajale ñàkk yi euh, dëkk yëpp ñëpp wuñ ko ci dëkk yëpp waaye li ëpp ci ñi ko ñàkk ci yeneen dëkk yi lañ nekk Touba rek daanaka mooy ñi nga xam ne ñàkkuwuñ ko parce que dunduñ ko yëguñ ko xëy na kenn yëgalu leen ko wala am na ñoo xam ne sax lijjantiwuñ ko mais pourtant doomu jàngoro mi ngi fii ci biir dëkk bi. ay kilifa la fi ay mukallaf la fi dal yoo xam ne nii xëy na ba ñu doon tu tànk ku leen defaloon ñàkk bi na loolu leen dal moom moom décret jàngoro yoo xam ne amul arrière maanaam bu la dalee moom amul lu ñu naan lii garab sàngam la wala nangam nangam li tubaab di wax couloir de la mort marital daanaka foofu ngay daal di dugg donc bon ci point boobu si bu ngeen ma ko mayee comme mi ngi bëgg a guddi ma jàll ci euh, sage yi ñu gën leen leeral lan mooy butitu njurukaay parce que euh, suñ ko comprendre. suñ la waxee jàngoro yi ci butu ci butu njurukaay lay lay lay nekk ak nan la ciy nekkee parce que euh, du noon du doon loo xam ne nii day nekk ay bopp yu metti wala yu mel noonu saa saa bi danañ ci gën a leeral dafa nekk loo xam ne nii euh, nit ki mën na dund ak moom ay ati at at fukki at fukki at ak juróom door a compte ne am na doomu jàngoro bi xeeti jàngoro yooyu nga xam ne. dañuy dund ak yow lu yàgg door laa indil musiba mooy jàngoro yi nga xam ne moom la ñuy wax les maladies silencieuses ñoom ñoo gën a bon boobu ci la bokk sida ci la bokk poliomyélite mi ci la bokk yu bëree bëri noonu la ñuy dundee xam nga siburu moom bu ñu la càpp tey ni ko olof waxee bu ñu la càpp nga ne caa wàccu bokkut ak <laughs> yeneen feebar yi parce que boo siburoo tey léegi léegi nit ñi xam ne siburu ga yee jàngoro na mën ngay ne ci kër gi dox say soxla fukki at ak juróom wala lu ko fekk mi ngi say biir yaram di di def di def musiba su demee nag ba nga xam ne egg na ci cappaandong gi ba war a indi nag li ñuy wax euh, ay signam ay màndargam su boobaa nag ñu ne kii dafa amee cancer ñu ne dafa amee cancer. waaw dafay dafay dafay baax bala ñoo egg ci yenn détail mi leeral leen yan signe lay lay dikkee ak maanaam lan ngay yëg boo amee cancer du col wala boog tàmbaliment cancer du col. bëgg ñu nga ne maanaam ci boo ko rek xel mën naa ñaaw tuuti nga gaaw daw dem nga gaaw daw dem kër maanaam mën nga am maanaam ay saignement maanaam sa kanam di génne deret boo xam ne nii dafa bëri te normalul wala maanaam euh, mën na nekk règle man naa mën naa mën ngaa gis deret yaakaar ne sa règle la waaye dafay nekk deret yoo xam day génn du bokk ak maanaam wàllum wàllum règle dara bokkuñu wala maanaam euh, soxna yi nga xam ne tamit dañoo dañoo dañoo ménopause maanaam dañoo maam seen njurukaay arrêté na yenn saa tamit day far di leen dikkal yooyu yëg-yëg dañ koy am soo gisee exemple tey koo xam ne dafa dafa dafa dem hôpital ñu ne ko yow kat dangaa ménopause maanaam sax am doom suñu borom jeexal na ko mën nga xëy xëy gis di deret di génn sa kanam wala ko mel ne soxna yi nga xam ne nii dañoo toll seen digg ndaw mën nañ xëy tamit di gis ay perte yoo xam ne mooy perte blanche weex yooyu di génn ci kanamu jigéen xam nga loolu normal na ndax jigéen kanamam daa war di génn liquide boobu suñu borom moo ko bindee noonu waaye likit boobu mën na ñëw ba pare bëri mën na bëri lool ba pare xet gi mën naa changé wala itam mu ñëw ci quantité boo xam ne normalul wala itam ngay sëy ak sa boroom kër muy metti lool nga yëg ay méttit yoo xam ne day am ci sa ci sa suufu naq bi méttit yoo xam dafay dafay tar lool lool lool wala booy dem di tuur ndox muy metti lool ba nga xam ne tuur ndox ba sax da ngay lu arrêté ko genre signe yooyu fi nga gisee rek gaal leen ngeen dem kër ñu xool exactement lan la ak it euh, li may leeral la tamit mooy cancer du col dafa am benn infection bu koy joxee mooy li ma wax sànq ne infection boo xam ne ci kanam gi ngay sëyee lay jaaree waaye tëbu tëb rek nekk cancer du col de l'utérus ndax cancer du col de l'utérus infection bi dafay nekk ca bëtt jurukaay ga di gën di dem di fa nekk di continuer di jur di dem di modifier maanaam li nga xam ne maanaam mooy der bi der bi empourpé bu tundukaay bu fa yàggee nag infection bu fa yàggee nag dina dem ba am dina dem ba am fukki at wala fukki at juróom boobu nag ngay soo ko wax ay cancer cancer du col de l'utérus waaye tekki nekk da ngay gis si ñi ma waxee daal ne ah man de am naa cancer du col de l'utérus maanaam tàmbali bi la waaye tekki ne moom nga am. fa ngeen gisee lu mel noonu da ngeen di gaaw ngeen kër docteur ndaxte cancer du col de l'utérus am na soxna yu bëri yoo xam ne nii euh, maanaam maanaam ñàkk loolu na leen seen dund li mu rey dafa bëri kon nag matul di fowe maanaam même bu dul cancer du col de l'utérus ak jigéen lépp lu mu gis ci boppam mu nekk loo xam ne nii xamu ko mu nekk lu ko jaaxal te mu lekk li normalul li nga war a def mooy nga gaaw dem hôpital nga ne man kat damaa gis loo xam ne damaa jaaxal ci sama bopp léegi laa gis ndaxte comme comme ni ñu ay sage-femme lañ seen moroomu jigéen lañu waroo leen ñëw rus donc lépp loo xam dafa nekk ci yéen mu jaaxal ne da ngay war a ñëw ba ci ñun ngay wax ñu ah ñun kat lii ak lii ak lii moom lañ gis ci ñun. donc si ñu ma leen wax fii pour cancer du soo su gisee rek gaaw leen ngeen ñëw ci kër docteur ñu xoolal leen ko. bu ngeen ñëwee tamit nekkul ne que sage-femme day ñëw toucher leen rek comme maam xool leen daan ne leen ah yéen am dafa am benn examen boo xam ne lu mel ne lu benn examen bu ngeen di def boo xam ne daa am lu ñuy def seen kanam génne tuuti liquide boobu dañu def euh, lu mel ne dañ ko yóbbu laboratoire loolu la ñuy jël utiliser ko tuddee ko si biopsie si lay tudd euh, su boobaa nag ci lañ mën a xam ba xam réellement lii nekk sa buttu njurekaay gii cancer du col la waaw wala déet ndax tekkiwul ne dangaa am ay douleur ci sa suuf danga am ay métit ci sa ci sa suufu naq rek dangaa am cancer du col tekkiwul loolu. ndax yenn saa dangay gis ko xam ne dañoo hôpital ba du ba du du sax mën a siggi ndax méttitu méttitu naq sama naq day métti fan yii yëpp su may su may tuur ndox dafay du douleur yooyu tamit day am mais tekkiwut foo ko gisee cancer du col la. cancer xëyul rek nekk cancer dafa am fu muy jaar ba nekk cancer fi muy jaar foofu nag mën nañ ko moytandiku wax na ko sànq boo gisee teel a dem kër docteur ñu jox lay garab nga naan loolu dañ. ma gilaawaar yi di mën a jur cancer moo ci moo ci moo moo ci gën a kawe booy set ndax cancer moom après dee waaye ci diggante bi am doom mi ngi fi avortement yu du jeex yooyu yëpp la koy jur kon yooyu yëpp ay gilaawaar la yoo xam ne infection mën na ko indi may bala moo indi kon nag loolu yëpp na ngeen ko teel a moytandiku tey delloo ko dem kër docteur. beneen bi ñu ci yokk mooy lu am solo loo xam ne ne aboo abo junj noo ko sànq mooy loolu lépp nag li muy baax lépp ñu wax leen si njëg yooyu yëpp am na nu ñu ciy aaroo. te aaru dafa gën faju wolof Njaay nee na fagaroo gën faju xoddeeku balaa ngaa lakkale parce que loolu soo ko defee rek yàlla mën na laa musal bi ci jiitu mooy ñu bàyyi ci xel bu baax a baax ne am na ay vaccin yoo xam ne ne teg nañ ko ngir aar loolu feebaru cancer rek te xale yu jigéen ñoo ko moom ñu am juróom-ñeenti at jàpp fukki at ak ñeent suñ leen suñ leen ko vacciné yàlla mën na leen a dimbale ba nga xam ne feebar boobu du leen dal waaye vaccin li ci abo wax rek ñun Sénégal ñun ñàkk la ñu bañ dégg ñun mën nañoo dégg lu ne d'accord ko waaye buñ ne ñàkk rek xel yi am fu mu dem te yëpp gis nga ñakk ñun ñii ñëpp fi nii suñu yaay yi xamoon nañ ay xureet xamoon nañ ay ŋas xamoon nañ ay njàmbataan waaye ñun ñii classe tiers gii presque xamuñ ŋas loolu li tax xamuñu ko mooy ñun dañ ñakk ñàkk koo xool sa sa sa mbagg fii di nga fi fekkum ñàkk boo xam ne na aar na la ci ay feebar. yéen bi ngeen amee ay tout tànk da ngeen koy yóbbu hôpital ñu koy ñàkk mais ñàkk yooyu dafa doyut ñàkk dem yóbbu sa doom rek ñu ñàkkal la ko dafa doyut dafa am loo xam ne responsabilité ki njiitum réew la ñi bokk ñu dëkk ci réew mi état la responsabilité état mooy aar ak njabootam ak nu mu a nu mu ko mën a utiliser ba aar njabootam war na ko warugar la ci moom warugar nag mooy du wàcc kenn moom li tax ñu ñuy fal ñuy fal ay état te fu teg état di teg ministère de la santé mooy fexe ba askan wi duñ tawat. loole nag li koy li li ñuy def mooy outil garab yoo xam dañ koy askan wi aar leen ci tawat jooju kon feebar bii ñuy wax muy cancer butitu njurukaay bi mën nañ cee aaru ci bañ nekkee ndaw yàlla mën nañoo dimbale ñu aaru ci suñ giirug dund. jamono yee weesu rek foog naa ñu ngi doon journée boo xam ne dañ ko doon saytu ci jigéen ñi gratuite defar nañ ko ci hôpitalu sëñ Modou bi. xool jigéen ñi ba xam amuñ doomu jàngoro jooju la loolu yëpp ci aar nit ñi la waaye li ci ëpp solo aboo wax na ko sànq bàyyi fi ñàkk bàyyi fi ay ñàkk ba mu primé waaw waaw ba mu primé su primé rek mbir moomu mënut ki dara kon ñàkk yi mu ngi ci hôpitaux yi mi ngi ci poste de sante yi xale yi am juróom-ñeent ci at jàpp fukki at ak ñeent ci jigéen ñooñ lañ koy ñàkk ngir aar lañ ci feebar boobu kon ñu ngi leen ciy bàyyiloo xel bu baax a baax. bon ñaari taxawaay yooyu ñi ñëpp war nañ ko taxaw xale yi nga xam ne dugguñ ci néegu sëy maanaam pourquoi 9 ba 14 ans ñooñu maanaam seen appareil bi nga xam ne mooy mooy appareil sëy sëy néegu sëy bi tàmbaleegul di am di développer ay infection bon ñooñu dañ leen a war a aar dañ la leen ñàkk ñoom ñu daal di faree benn côté ñi nga xam ne nag dañu toll ci sëy wala ñu dugg ci néegu ci ci ñu dugg ci néegu sëy ñooñu. ñi lim soxna jaaroon wax léegi ñooñu dañoo war di xool seen bopp di saytu seen bopp di bàyyi xel seen bopp ba mandarga yi nga xam ne wax na ko saa yu amee rek ñu mën a toll ñu mën a teel dem hôpital waaye lu ñu gën a yitteel moo ñu ñàkk xale yi ñàkk yi mi ngi ci hôpital bi altine ba àjjuma ku yanu sa doom indi dañ ko ñàkk bokkut ak ñàkk yi ñuy wër di di joxe nag moom ñàkk yi toujours parce que ay piqûre la moo tax ci hôpital bi rek lañ koy lañ koy bàyyi lañ koy lañ koy lay nekk jigéen ñi tam lay doon. ñekk góor ñi amagul mais dina am ci kanam mais pour l'instant jigéen ñi kese lañ koy defal parce que jigéen ñi tam góor am cancer dañoo am cancer mais jigéen ñi moo gën a bëri Sénégal. kàddu yi nag jërul soril dama am benn laaj bu may laaj rek bu ndaw damaa gis yéen docteur yi ñu wax ni dëkk bi dafay am farmasi valable ak pharmacie valable te ñun bu ngeen nu bindalee ordonnance ñun jànguñu xamuñu dara dañuy génn rek dugg ci pharmacie génn jënd suñu ñëwee dellu si leen garab gi da ngeen naan koy jëlee nii ngeen koy jëlee. au lieu que ngeen nu delloo leen garab gi ne jëndewu leen ko ci pharmacie valable xaw ma nu ñu njàng mi daal soriwul pharmacie valable xaw ma nu ñu koy waxee du ngeen nu delloo leen ko ca jën garab gi ngeen gën a baaxul valable da ngeen nuy wax rek ni ngeen koy jëlee nu dem jël ko mën naa am jariñ ñu dara mën naa am duñu jariñ ñu dara duñu jariñ dara man nag samay laaj dafa jëm si ñaar rek comme feebar bi nga xam ne son si doon na ko junj léegi mi problème cancer bi wax na ne amul aas maanaam mën na dem sax ba si nga xam ne jàpp na 9 ans ba 14 ans ne ñooñu buñ ñu ñëwee am na ñekk xam ne mën na leen see dimbali mais dafa wax ba yeggal waaye dëgguma mu wax lan mooy joxe cancer bi te loolu tamit dafa am solo pour ñu xam ko ndax ñu war ko mën a moytu. xam naa dama amoon de questions yoo xamante ne si rek bëgg naa leen koo laaj ma leen di laaj ñoom ñi nga xamee ni en tant que ay médecin ndax ñi ngi xalaat. si teg ay programme yoo xamante ne si dinañ mën a sensibiliser nit ñi ba nit ñi mën a ñëw di jël si ñàkk yooyu beneen bi mu ngi jëm si côté euh, feebar bi nga xamee ni soxna si mi ngi ko doon wax mu nekk feebar bu doy waar ma doon laaj rek ndax bu dalee soxna si bu ñëwee hôpital kenn ku ne xam ne feebar bi nekk na loo xamante ne si yombul yaakaar naa ay frais yu cher moo si fekk ki nga xamante moom la dal ndax hôpital bi am na benn euh, euh, taxawaay boo xamante ne si dina ko taxaw ngir jàppale malade bi nga xamante ne si moom moo ko moom la daal docteur bi su fekkee ne garab bi mu la bindal ba nga indi moom la parce que mën ngaa indi ba mu la bindal nag su fekkee boobu nga indi amul droit wax la ne du boobu waaye nag ndax garab bi baax naam baaxut na docteur mën na koo xam mën na ko bañ xam. li ma leen yee daal mooy pharmacie boobu ngay gis noonu ñu teg nii. mu nekk pharmacie boo xam dañoo loué benn magasin fee ubbi fa pharmacie mu nekk ak commerçant di jaay mën naa jaay garab bu périmé wul mën naa jaay garab boo xam ne nii maanaam dara xoosuwu ci waaye dafa am lu ñuy wax principe actif muy ferñeent biy faj fi ñu tëral garab gi laataa garab gi jar tàngaayu jamono ji mën na faa mën na ko faa fekk yàq yàq garab gi su ko fi yàqee nag su ko yàqee nag amul benn preuve. bu nit ki mën a teg ne garab bi yàqu na loolu dañ koo delloo fa mu fañ ko fañ ko defaree woon fa mu juddoo woon ñu saytuwaat ko xool ndax lañ ferñeent bañ defoon ci biir garab ma ngay dund wala dundatul xam nga loolu bët mënu ko xam donc bon problème bi nga wax nii daf problème la boo xam ne nii docteur mënu ci dara mais état la état nag bu ñu ko waxee sax mun naan la dugg ci biir état parce que ñoom ñoo jiite. donc loolu ñoom ñoo ko war a lijjanti problème la boo xam ne daf ñu dépasse ñun ñëpp mais nag lum la dépassé dépassé yaa war a xam. yan pharmacie moo am ci dëkk bi pharmacie yooyu bëgg nañoo liggéey guddi mais mënaguñoo liggéey guddi ñoom dañoo décidé woon dañuy garde guddi ñu ne pharmacie Thiam docteur Thiam moo aaye tey ak Mbeng ëllëgee ñu ne docteur Mbaw moo aaye nangam nangam mais bi biñ ko tàmbalee yeneen pharmacie nga xam ne ñoo jàkkaarloo hôpital yi di jël malaat di ko jaay ñoom ñu tëdd ba bët set duñ gis kenn ñu daal koy bàyyi. lenn képp moo ko joxe mooy benn infection la bu tudd papillomavirus humain yaakaar pour ma mën a expliquer virus bi loolu dafay xaw a diffi xaw a difficile ci nit ñi mais xamal que ni benn infection kese moo ko mën a joxe bu tudd papilloma virus humain te fenn képp la mën a jaar mooy ci kanam gi jigéen di fay amul beneen bunt bu mën a jaar. feebar bi nag nit ki mën na tawat am jeexital bi mën na tawat bañ am jeexital bi di ko wàlle ci nan la koy wàlle mooy que ne mun na dem àll ci dem àll bi doomu jàngoro bi mën na tasaaroo ci dem àll yi. beneen bi mooy. vaccin yi nga xam ne ne dañ koy faral di indi ci hôpitaux yi état mu état bu ko xasee indi moom day uti partenaire pour mu mu accompagner ko heureusement que malheureusement que programme bii amagul ay ONG yu taxaw pour ne dañuy financer ay campagne de sensibilisation pour ñu xeex ko mais mi ngi ñëw nag parce que SYCODEV foog naa sii di xam na SYCODEV ñooñu ñëw nañ pour pour pour xeex yu mel nii. ay partenaire la yoo xam ne dañoo ñëw jàppale état Sénégal pour sensibiliser nit ñi bañ gën a mën a xeex feebar yu mel nii ba xam ne nit ñi war a vacciné wu dinañ vacciné wu loolu nag mi ngi ñëw ndànk nag mais ONG moom ay mbiram dafa gaawut waaye ñi ngi ñëw pour soutenir état bi ci yu mel noonu ba nga xam ne dinañ def ay ay journée de sensibilisation di sensibiliser nit ñi pour que ñu dem vacciné wu contre feebar boobu loolu boom bu yeboo ñu xam ne ne ñu ngi ci mais nag accès gu bonne volonté yi rek ñooy organisation yu mel ni ñu koy waxtaanee pour que ni ñi gën ko bàyyi xel baax a baax. ngeen nekk si hôpital Sëñ ñu gis njàpp na li ngeen ñuy defal bu ñu fa ñëwee kon d'abord bu ngeen ñu indilee waxtaan bu mel nii association bi dañ ci am contentement bu baax di leen ci sant bu baax a baax di leen wax rek comme niñ ko waxee ñu déggee ko noonu. képp koo xam ni li ñu wax si jàngoro yi rek yaa ngi koy yëg si sa yaram nga dem ba si ñoom ndax ñoom amuñu benn problème di sant bu baax a baax waa association yi nga xam ne teew na fi waa AST te Mame Fallou jiite leen ak ànd defar jikko yi sama waa ji yorub caméra bi ñu ngi leen di sant bu baax ci seen teewaay ndax gis nañ ni ñuy dundee ak association bi. salaamaaleykum euh, la population de Xayra salaamaaleykum waa ATL salaamaaleykum euh, maire mbootaay yi salaamaaleykum la jeunesse. man la Khadim Ndiaye le coordinateur euh, de ATL donc tey ñu ñëwoon tey doon def benn euh, mobilisation sociale euh, vraiment ATL donc organisé doon si nag invité maire mbootaay yi xam ne nii ñoom lañuy liggéeyal depuis boobu ba léegi ak tamit toutes les associations yi xam ne nii ñu ngi nekk si biir Xayra vraiment lu mel ni association end seetal Touba association ànd defar jikko yi association des jeunes unis pour le développement vraiment di jaajëfal seen teewaay vraiment ñu ànd ñoom liggéey bi euh, muy lu am solo lu am solo tey nag euh, waxtaan bi tey bi euh, dañ ko doon tënk rek si ñaari thème benn bi muy polio polio yaakaar naa mooy feer bi nga xam ne ni xale bi daf koy am ginnaaw bi mu juddoo ba muy am cinq ans daf koy am mu ñu koy wooyee laago loolu yaakaar naa moo leen waxtaan ànd seeg euh, ay ay euh, infirmiers yoo xam ne ñoo jóge si poste santé bu Xayra loolu tudd si Abo Diop ak Serigne Fallou ak euh, madame Mbacké la sage-femme d'État waaye tamit beneen thème bi mu ngi jëm rek si li naan cancer di col de l'utérus maanaam cancer bi nga xam ne nii suñu yaay yi dañ koy am si si kanam yi vraiment mu leen di indil ay ay ay ay ay ay lu mel ni ay avortement wala sax ñu si jaar sax ñàkk seen bakkan wala seen doom si ñàkk seen i bakkan yaakaar naa loolu moo nekkoon waxtaan tey bi ATL nag yaakaar naa ni c'est pas la première fois et ça pas la dernière fois mu koy organiser parce que yàgg na ko def ay activités yu mel ni activité sociale lay nekk activité euh, communautaire lay nekk euh, jëm si wàllu santé bi di sensibiliser euh, les jeunes di sensibiliser encore une fois les femmes waaye tamit day jumute lu mel ni éducation parce que yaakaar naa ni samedi passé 28 pro ñoon ngeen fi dafa ñun lu mel ni génie en herbe si domaine de la solo Euh, dans le domaine euh, de la santé aussi ñu si liggéey tamit lu mel ni des des des des centres ado maanaam di di inviter les ado les jeunes âgés euh, de treize à vingt quatre ans di waxtaan ñoom si li naan standard de production yaakaar naa loolu ATL mu ngi koy mu ngi koy euh, mën a si jamono ñu toll nii kon ñuy lancer rek un message pour toute euh, la population Xayra les autorités les jeunes les femmes ñu ñëw jàpp si ATL xam ne ATL duggaan na si koñ bi jugaan na pour liggéey mu ngi mën war ay activités ngir jàppale ndaw ñi ngir sa jàppale aussi femmes yi yaakaar naa loolu moo dooroon waxtaan bi rek incha allah ku bëgg gis ATL nag mën nga fekk si dans les comme WhatsApp euh, Facebook Instagram euh, TikTok bépp réseau boo xam ne rek jeune nañ fa dajee rek vraiment ATL mu ngi fay ñëw te remercier baax nag 28 euh, Pro TV vraiment ñu nag ñoom liggéey bi léegi tey mu tàmbalee neex parce que yaakaar na c'est pas la première fois ñuy nekk ak ñun di liggéey kon ñu leen remercier baax baax si seen taxawaay au au sein de la population de Khayré vraiment ATL vous dit merci merci encore une fois pour toute la population de Khayré et je vous remercie.